problème mais Sénégal fépp foo wokk mu ngi xasan. Sénégal cancer la bu am ay métastase partout wax nañ ko Aliou Sané wax na ko nee na la cancer bi moo wal law fépp tey jii nii xoolal euh, CSE xoolal xoolal xoolal xoolal euh, comment dirais-je institution yi budgétivores yi am. Mhm. assemblée nationale ña ngay tamante dëmm ki naan yaa jël kii naan jëluma directeur RTS réparé otoom 60 millions. nga gis ay o collectivité xaw ma territoriale xaw ma loolu waa mais loolu euh, ku neex nga taxaw démentir alors avant ñuy delluwaat ci sëriñ Saliou Thiat li ma xaw a jaaxal un peu c'est que préfet bu Dakar bu bi ko suñu yenn confrère joindre moom dafa xam ne ni que il était pas au courant que yéen da ngeen di def euh, manifestation ça c'est un aveu d'incompétence c'est un aveu d'incompétence est-ce que yéen jaar ngeen ci euh, xam nga lan lañ xamul c'est que il faut que il faut que il faut que les gens soient sérieux quoi le collectif ñoo bañ ñoo lànk ni mu organisé woo bokkut ak yeneen organisation yu njëkk ya aar lu ñu bokk dans aar lu ñu bokk suñ doon demander autorisation on le faisait au nom de aar lu ñu bokk mais avec le collectif ñoo lànk on le fait avec un mouvement en particulier ça veut dire bii waa Y'en ñooy dem demander autorisation bii waa FRAPP ñooy dem demander bii kii mooy dem demander mhm. et bu waxee ne gisul une autorisation pour ñu def sitting euh, suba ca place de l'indépendance waxul lu am donc pour mu leer def ngeen demande. mais pas ci turu ñoo lool léegi nag ñun am nañu récépissé de dépôt pourquoi yéen les journalistes vous n'êtes pas allés recouper cette information pour am ne am la preuve que ñun demandé nañ. moo tax ñu invité leen donc nag nañ ko en bon et due forme et dans les délais. donc lu waxee ne gisu ko c'est une for boobu c'est un aveu d'incompétence de cette cette institution voilà. d'accord alors euh, Serigne Saliou euh, ñu euh, président Macky Sall jege ñaaleem yi nga xamante ne dañu ko naan que bu mu reculer sinon il risque de perdre la face vous en pensez quoi. bon ce que j'en pense d'abord il faut nga analyser ñi nga xam ne ñooy wax loolu l'ex premier ministre monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye qui est aujourd'hui PCA à Air Sénégal moom moo def déclaration boobu malheureusement ce matin. mais aussi xam nga Souleymane Ndéné Ndiaye je crois que nit ñi xam nañ ko parce que nit bu fekkee ne doo respecter sa kàddu je crois que finalement lépp loo wax nit ñi dañ koy oyofal. moo fi taxoon barki démb ne transhumant yi dañu war a dugal benn disposition dans le code pénal ku fi transhumé ñu fusillé la il a fini par par transhumé donc je crois que disposition boobu tey bu ñu doon appliqué je crois que ci moom lañ ko lañ koy njëkkee mais xam nga temps yi nekk ci temps surenchère <coughs> ko. parce que ku ci jege président de la république di nga jéem peut-être wax ko loo xam ne ni lu ko neex pour moom peut-être mu lay mën di fàttaliku récemment la fii Serigne Mbacké Ndiaye wax la suppression même de de la limitation des mandats présidentiels mais tout ça c'est pour plaire tout simplement au prince kii aussi bu taxee wax loolu pourquoi moom le juin il n'a pas conseillé ça Abdoulaye Wade c'était le premier ministre à l'époque lan moo tax moom waxul Abdoulaye parce que xamoon ne su ko waxoon jour boobu Ablaye Wade jéem ko moom du ci rëcc Ablaye Wade du ci rëcc te je crois que am na yenn kaddu yu violent yoo xam boo ko day yëkkati bés bu ci bés bu yool bés bu euh, anto su boobaa yow mi ko njëkk a wax yow ci première victime yi ci ngay bokk. alors ah. il faut tout rek voir la personne ah. le premier ministre APCA. Mhm. jarul waxaat. voilà balaa dimbet ngay dugal info parce que am na info boo xamante ne dañ ko joxe en exclusivité ci Zik FM mu ñeel promoteur bi la di Luc Nicolaï Luc Nicolaï plutôt donc euh, police daal dina koy arrêté gendarmerie bu euh, Thiès yóbbu ko directement prison di rappeler que ci lu ñeel affaire Lamantin Beach la ñu condamné woon ko à cinq ans dont deux ans yoo xamante ne daf koy tëdd donc finalement jëli nañu ko tey pour euh, yóbbu ko fële ca ca prison moom Luc Nicolaï voilà. Khady merci beaucoup oui. alors tey euh, Serigne Saliou est-ce que tey xel nangu na ñu nekk ci état de droit ay nit jóg am lu leen métti di manifester yeneen nit yu ànd ak président république ñëw ni dañuy défendre la république. xam nga boo xoolee loolu duf duf duf lu bees sous le régime de Wade waa Y'en a marre yii amoon na Y'en a envie amoon na fi. ñoom ñoom ñoom dañu wax ne dañuy jéem def chaque fois de contre-marches te li tax ma ne préfet ci boppam il n'a pas joué rôle kilifa dëgg bi mu waroon parce que xam nga constitution Sénégal boo xoolee ci sixième bi moo consacré les libertés te liberté yooyu bi ci njëkk liberté de manifester ci boppam moom moo moo ci jiitu te article bi topp ci ginnaawam muy article sept ou lu mu wax mu ne képp koo xamante ne nii da ngay jéem a entraver l' exercice d' une liberté dinañ la jàpp ba pare dor la ay daan ñu war a daan cela veut dire quoi ça veut dire que tey bu kenn waxee na man damay marche keneen jóg ne ko doo marche c'est-à-dire wax loolu kooku yoon dafa war a ñëw tey teg teg ko ci loxoom bu fekkee nañu appliquer les dispositions constitutionnelles mais malheureusement duñ ko def te lii nga xamante ne moom moo xew malheureusement ba ñu jógee ci daal ne trouble à l'ordre public loolu la ñuy craindre moi je me dis que tout simplement c'était un coup monté mmh. ñoom xamoon nañ bu baax ne ces gens là qui se disent que déjà ñoom je ne sais pas sont les boucliers de la République en fait ils ne sont même pas les boucliers ils ne sont même pas les boucliers de Macky Sall dañuy défendre la République mais République bi dafa na sax à ce point wala ñoom dañu jaawale ni yaakaar ni président Macky moom cest à en fait ñooñu c'est des gens quand même yoo xam ne ni qui veulent se faire tout simplement qui veulent se donner une existence tout simple parce que boo xoolee ñoom c'est des gosses qui sont xam ne ils se sont même désolidarisés de cette encore les républicains arabisants ñoom seen wàll boobu aussi ils ont fait une déclaration en disant que ñoom ils se désolidarisent de cette initiative pour dire que même ñoom au sein de leur propre majorité am na ñoo xam ni ànduñu ci donc ñi koy def naan sont les boucliers ñoom ils ne sont même pas les boucliers de leur propre personne à plus forte raison parce que su fekkee ne président bi ñii ñoo ne nekk ay boucliers je me dis que réellement donc na xoolaat boppam parce que je li ci nekk bu tant que ñu ngi koy ñu ngi koy topp je crois que réew moomu du am benn jafe-jafe mais bés bu ñu ko bëggee chamboulé bëgg a jël leneen tegaat ko ci kaw su boobaa foofu la sécurité di commencer am problème ci réew mi te souvent dañuy wax naan trouble à l'ordre public mais je dis que ñiy troubler à l'ordre public c'est ce qui trouble l'ordre constitutionnel te ordre constitutionnel moom soo ko troubler rek di indi trouble à l'ordre public mais il faut respecter la constitution quand tu la constitution il y pas de problème man ce que je ne pas concevoir les gilets jaunes pendant six mois en France ils ont manifesté dem nañ ba yëngal les de de kenn ki sax toog na ci benn le, le, la petite suédoise là qui, qui euh, contre le climato-scepticisme de Donald Trump. Il a, elle pratiquement des milliers de personnes devant la Maison Blanche. Ils ont manifesté pendant des heures et des heures. teg seeni micro di wax waa ji di ko dégg ci biir mais loolu su fekkee ne mën ci réew yooyu am France am États-Unis ñoom dañu gën nekk ay démocrate ou ñoom dañu gën xam la notion de liberté. tey jii bu ñuy wax ci wàllum démocratie